ñu ñëwaat ci poule bee bi ndaysaan kaay butéel yi mbokk gis ngeen premier combat walla ci compétition bi dam na muy Serigne Ndiaye 2 ak Bouki Ndangaan waaye ñu ngi ci poule bee bi premier combat bi ngi noonu dox ci diggante Thiaka Faye ak général Malika Thiaka moo la féete ndi joor ngemboo lu ñuul li général moo la féete càmmoñ ngemboo ngemb lu weex li général na tey ngemb lu bees tàq la indi lan la compétition bee ko laaj tegtal la wala lan daw na jëli Thiaka général Thiaka Faye ndeysaan ñu ngi noonu général Thiaka Faye tey li tax mu neex mooy mbër mën naa daanu sa premier combat sax te doo perte compétition bi ndeysaan moo tax tay daal làmb la ci biir làmb yi caaka fay général caaka fay général général jël na tànk bi jël na tànk bi da koy suru xol wala déet général takk na ko caaka bañ na général ëñ na ko da ko bëgg a bal na ko ma ngi koy gëtëng général caaka ndaysaan tàccu na général caaka général na dafa ñeme caaka fay ndaysaan moom noonu lay bëreeg moom général caaka ña ngay bëree caaka fay général général Thiaka kaay ni lewaat na ndaysaan ñu ngi noonu Thiaka Faye moo la féete ndijoor général moo la féete càmmoñ ndaysaan ñu ngi noonu di lewaatoo ñoom ñaar Thiaka Faye général ndaysaan daw na bal ko fàqat na ko mu rëpp wala amu ci rëb ndeysaan Caaka Fay général général Caaka ndeysaan général Caaka Caaka Fay général ñu ngi noonu ci compétition bi ndeysaan ñu ngay bëre ñoom ñaar ñëpp ay poids lourd te ñaari poids lourd ndaanaan lañ ci làmb daw na jëli ko ñu ngi noonu Caaka Fay général Caaka Fay général ñu ngi ci combat ba tey Caaka Fay général mais ñoom ñaar ñëpp ci favori yi lañ bokk ndax Caaka Fay Serigne Ndiaye 2 général Géant Bargny ndeysaan Caaka général jël na jël na ko jël na ko jël na ko jël na laa ilaaha illallaah daan na ko général daan na Caaka Fay ndeysaan lu ma la waxoon lu général da koo ñeme dëggal boppam ci bëre bi ndaysaan général daan na ay supporter la indi moom doomu Malika bi ndaysaan xoolal supporter supporteru ndaysaan général Malika yi